jur yërëm. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars ñoo déggandoo message bi jabaru Ousmane Sonko yi ku ci tuuti kii nii moom mooy Anna ak Khady ñoom ñaan ñëpp ñu muuru mais ne ko jógee Éthiopie nan la situation est choquante ah ñi ngi ñaan Marème fay Sall kon daal gat sa gat sa dafa mujjee ci ñaan sa ñaan sa gat sa gat sa daa dem ba mujjee ci ñaan sa ñaan dañ ko war a faj ñu soigner ko peut-être on peut euh, on peut amener en même temps les UNICEF le gendarmerie le le police mais nan ñu jox Ousmane ñu faj ko xam ngeen kan ngeen waroon a faj Ousmane yéen ba Ousmane feebaree soxla massage muy dem ci Adji Sarr mais nga xam ne nii daa ngeen la ko wooyee mu di commencé ngeen war koo mën a téye damp ko damp yu wóor ne ñun su su yow yaay suñu jëkkër ñun ñooy say soxna su suñu loxo nooy na mën na la dàpp muy taxawaalu taxawaalu ba lii dal ko ngeen ngeen naan jox leen ñu ko ñu faj ko ba ngeen ko war a faje yàgg feebar ba nag moo mujj def ay effet di def ay effet di def ay effet di def ay effet ba yóbbu ko si bu xotaan ca yooya ngeen seetaan ko ba mu toll fii naan nan ko ñoom faj ko gat sa gat sa daan naa mujjee ci ay ñaan ah Ousmane Sonko lekk leen ñor mais ñu réew mee ñu ak Sénégal ak senis bi waaw ñu réew mee ñu ñor wali jàmm la gat sa gat sa daa mujjee ci ñaan sa ñaan sa xaaral ma dem